côté infrastructure da gan ñi aussi dalal leen dafay xaw jafe ba tax sax at mu jot euh, commission bi nga xam ne ñoo yor euh, wàllum euh, gan yeeg ñi fi ñi fi ñëw dañuy sàkku ci nguurug Sénégal xëy ñu abal leen benn barab pour ñu def fa ñeen ñi la taa ñuy dem biir Touba ren nag dafa am coow lu mu xaw a jur ci bi ñu ko sàkkoo ci nga xam ne moom mooy yor les moyens généraux de l'État muy Cheikh Omar Diagne gantom bi dafa metti mër yu bëree bëri ndax bokk nga ci ñi mu touché. waaw dëgg surtout bu jógee ci ku mel ne Cheikh Omar parce que nit ku ne am nga sa gëm-gëm ah am nga sa bëgg-bëgg ndax yàlla sax dafa wax ne bu leen ŋàññi ñi gëmul yàlla. Mhm. boo ŋàññee ki gëmul yàlla day ŋàññi yàlla. wala tusubbul la seen yaddoona min dunillahi fa yusubbu la adwan bi xeyri ilmin yàlla moo ko wax man damaa jàpp Sénégal kenn ku ne sa gëm-gëm bi nga gëm gëm ko rek te bul ŋàññi gëm-gëmu keneen ka euh, beneen bi mooy. certes c'est vrai que le fait que euh, commission bi di demander gouvernement bi pour mu def ko je pense que tradition la daf ko daan def euh, yaakaar na bu ñu ko étudier woon bu baax war nañ ko war nañ ko mën a nangu daal. war mhm. waruñ ko woon a mën a bañ daal. je mhm. pense li nga xam ne nii boo ko bañee mu indi coow war ngaa xool ne lii. Euh, soo ko defoon dana neex ñu bari. Mhm. noonu daal laa gis. ah mais atum ren euh, naka lañ mujjee ak loolu parce que gan ñi moom ñëw nañ Touba bëggoon naa xam bu fekkee am nga information yoo xam ne yor nga ko ci par rapport ak ni ñu leen a dalalee. fi ñu leen jëlee fan lañ leen dem Touba ak naka lañ ci demee. waa xam nga affaire boobu man dama ko dund un peu dund ko ci ci légèreté après mu jur coow ndax man yëgoon naa ko. Hmm. biñ ma ko waxee bon defar ko xam nañ ne man maa ngi ci ay oto. ñu ma ko waxee ñu ne naa man ne ma ne leen te ñu leen a wutal biis bu gën a kii waaye ma wutal leen biis man maa joxe biis bi transport bi indi gan yi man maa ko def waaye ma loolu euh, c'est du dara ci ñun daal mm-hmm. voilà ñun waru waxuñ ne comité bi bu nga ko laaj état bi mm-hmm. mais je pense que mais liñ ci mën a jàng mooy bu état bañee Euh, taalibe murid yu mel ne sëriñ bu ak ñeneen mën nañ ko jël en charge comme ni ñu ko defee ren. non ñun duñ fi nekk di concurrence état naan ko état bañee non non mais dama ñun lu ñu war a def rek la ça ne va ay murid mën nañ ko waruñ ko laaj état bi ndax état bi du kenn nit état bi ñun la mhm. du euh, Bassirou Diomaye Faye moom moom état bi du Cheikh Omar moom moom état bi ki moom état bi mooy sénégalais yi su sénégalais yi bu ñu gisee ni lii njariñ la war nañ koo mën a def ndax da ngay seetlu na Serigne Mourtada bu demee Amérique mais l' état américain da koy jël en charge. Mhm. da ngay gis waxuma la jël en charge ay oto sax mais dangay gis ay dispositif sécurité yu mu teg ci moom c' est parce que affaire bi incompréhension la ak ñàkk euh, waxtaan loolu rek la mais je pense que luñ mën a luñ loo xam ne nii du amaat daal. Mhm. xam nga lu ëpp solo boo ko nit ñi jël ko def ko polémique mu indi coow nii nangam ak nangam ba mën a boole ci diggante commité d' organisation yi wala boole ci état bi yooyu est des faits yoo xam ne am na euh, nañ ko moytu rek. voilà. ah mais pour génn ci question boobu une dernière question rek avant ñu jàll ci leneen euh, bu fekkoon ne euh, nit ki ko bañal euh, yoon wi xëy na ci layam du du du doy waar mais dañ ko daan dig ci ay kàddu yu xaw a ñagas jëm ci Serigne Touba ci at yi ñu génn boo seetloo sa vidéo yi nit ñi ñu ngi koy génn wax na sax dem na sax ba ne màggal ak gàmmu période boobu blanchiment d'argent dafay dafay dafay am doole ndax koppar yi nga xam ne daf ci daf ci dafay tourner autour de de de ces deux événements. ma yooyu duma ci commentaire lu bari li ma la wax daal mooy bu kenn ŋàññi pas su jàmbur bu kenn xas pas-pasu jàmbur bu ñu la joxee dara alal réew mi nga di ko gérer gérer ko à un votre euh, âme et conscience bañ c'est-à-dire décision bi ngay jël sa sa kii sa kii sa par par fe feeñ ci daal mhm. waaw parce que je pense que du fait que loo xam ne depuis lors depuis lu mat ay dix ans douze ans ñu ngi koy def je pense que mënoon naa mënoon na ko bañ a bañ daal wàññiwul dara. voilà mhm. ndax du ko bañalu ko bu ko bañalee sénégalais yi la ko bañal. Mhm. ndax moom du moom moom moo ko yor te man sax présidence li ma ci daan gis lettre boo ma saan a gis ah secretaire général mooy signé wala directeur de cabinet vraiment liggéey naa ak présidence lu bari mais c'est rare que may gis lettre yoo xam ne nii daas moo koy signé. Mhm. loolu je que am na tuuti. manque de communication mais daal li ma ciy wax rek mooy am na loo xam ne lu ma ci dégg. benn benn polémique bu ma ci bëgg a leeral. Mhm. Euh, pour ñu xam ne ñu naan gan ñi li ñuy wuti hôtel méridien li ñuy wuti gan ñi dañuy ñëwandoo duñ ñëwandoo. Mhm. ku ne da ngay ñëw di ñëw di ñëw dañ leen di dajale fenn. Mhm. parce que munoo tey comité de réception bi yëpp ndax comité de réception bi yëpp mënoo gan gu ñëw nga yóbbu ko Touba. dañ leen daan dajale et c'est parce que bii sax mënoon naa gën a yomb ci état bi ndax. Radisson bi nekk fële. Diamniadio jam Diamniadio état ko moom. Mhm. mënoon naa gën a yomb ci état daal. Mhm. waaw man je pense que yaakaar naa ndax dégg nga li Cheikh Bass Abdou Khadir wax ne buñ ko demandé état bi dana ko def ndax def nañ qui peut plus peut le moins. Mhm. voilà je pense que ku def lu lu gën a bari mën na mën na def loolu yaakaar naa ah. bañal gi metti na xam nga bañal gi ni mu dama ko wax kenn dama ne ko euh, bu nit dikkoon ne la diw nee na nga jox ko dara. même boo xamee ne diw li muy wax amul soo ne ko du ko def day metti ci diw ma ko dégg mais boo ne ko yow sa sa li ma yónnee leerul waxal diw mu woote yaakaar naa mën naa yomb xam nga dafa am benn anecdote bu am euh, benn magum murid moo ko nettali nee na bi ñu nekkee ndaw sëñ Fallou dafee nekkoon dañ naan xëy rek suñ dikkee sëñ Fallou ne ko dañoo génn sëñ Touba nee na nangam sëñ Fallou jox leen ko benn mag ne ko yow xale yi dañuy wax rek mu ne nañ dem ca naajoo tàng jër taxaw fa gént ñëw ma jox leen ndax man Serigne Touba ku ma ko tuddal rek. Mhm. la ma wax danaa ko ci def. bon je pense daal appréciation boobu laa ci gis daal man daal buñ ma waxee ci mbirum Serigne Touba te ma gis ne su ma ko defee loolu mooy dem. Mhm. man dama koy def daal ci sa ah. ci man ci sama bopp moo tax bañ ma ko waxee vérifié wu ma dara dama wax ñu jël bis boo xam ne nii man mi maa ko. mayoon mairie Kaolack. Mhm. mu amal njariñ waa Kaolack trop. Euh, ma jox leen ko ci bis boobu lañ ñëwee. incha allah te bis boobu tamit danañ ko defaat ci disposition waa Medina Baye. Mhm. pour gàmmu gi incha allah ñu mën a yóbbu seen gan. mën mhm. ci andiwaat seen